moom mi jàpp ne rek Sénégal mënees nañu ko def clinique bu Afrique de l'Ouest moom Thierno Alassane Sall kon nekk leader bu République des valeurs euh, di suggérer nag benn proposition audacieuse ngeen ñu améliorer sax li nga xam ne moo di système de santé bu Sénégal moom nag mu insisté ci am solo goo xam ne am na ko solo rek ñu daal di taxawal benn clinique mobile ngir nag mu nekk solution de proximité ci nag li nga xam ne rek moo di ay soins de santé ci nag noonu rek. mu am akub uh, idée boo xam ne rek moo ñëw ca boppam te loolu nag mooy proposition bi nga xam ne teg na ko ci table ji ngir financer lu nu mel mu jàpp ne rek avion bi nga xam ne maki Sall jëndoon na ko fii te muy avion présidentiel jamono ji de sunum njiit réew di président Bassirou Diomaye Faye di ca dugg di dem di ñëw di tukki moom la ñu war a teg ci taabu ci daal di koy jaay su ko am koppar gu ñu mën a financer projet euh, bu nu mel. Ahmed Souzane Camara membre bu réseau des enseignants de l'APR moom nag daal nañu koy incarcéré gannaaw nag ay série d'événements judiciaires yoo xam ne rek. Euh, tukkee ne ci ay accusations yu gàll ci ndodam jëm ci offense au chef de l' état dossier am nag dàppale ne rek dañu ko mbëjee requalifié def ko nag mbirum criminel moom mi la sax jamono jële mu nekk sous mandat de dépôt gannaaw jonoom rek ak juge bu troisième cabinet des xaalandi rek ana fan la wanante du mbujjee ki gëtëm Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal yëkkatee kàddu nag jëm ci interdiction du voile ci nag li nga xam ne moo di suñu école moom premier ministre njiital gouvernement bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël ci position bu ferme nag maanaam daal dax rek li nga xam ne moo di tere gi nga xam ne ci yenn école dañu koy tere suñuy soxna di daal jël ko di muur seeni euh, bopp loolu nag ci cérémonie bi nga xam ne rek ci la ñu doon ndokkelee ñi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku gën a xarañ di ay ndaw ci école yi euh, ci atum 2024 ci la ñuy duppee concours euh, général moom nag mu jàpp ne rek interdiction bu nu mel moom loolee mënu suñu ko accepter te mënul Euh, ba tey moom Ousmane Sonko sax muy xamle na nag. gouvernement bu Sénégal dina rek informer askanuk Sénégal ci lu jëm na ci état des lieux maanaam daal réew mi jamono jile euh, fi nu ko fekk fi mbir mu toll ak fa nga xam ne sax moom la ñu jëm ca noonu tamit moom jiital gouvernement bi mu ngay sàkku rek ca ndaw yi ñuy éviter li nga xam ne moo di immigration clandestine maanaam daal jaar ci ndox mi ngir wutalik euh, tugal moom nag muy encouragé rek jeunesse euh, bu Sénégal ñu des nag fii ci sunum réew te participer sax ci li nga xam ne nag mooy euh, suqali dëkk bu nu mel ca geneen ak wàllu ci lu jëm ci wàllu média moom njiital gouvernement bi nag muy xam ne nag gouvernement bi daal du am benn tànki ginnaaw li nga xam ne nag moo di defaraat lu nu mel maanaam daal bàyyi nit muy wax lu ko neex ci presse bi lu nu mel wala sax réseaux sociaux yi direct yi nga xam ne moo cay am lool daal dinañu def campagne ngeen nag lu nu mel dakk ci na mu gën a gaawee lile di ab càkkutéef jógee ci Moustapha Diop di ab journaliste nekk foofee ca diwaanu Walfajiri di sàkku nag ci président Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko premier ministre ngir nag ñu daal di rek euh, jublu ci li nga xam ne nag moo di refection bu hôpital ba nekk ca diwaanu euh, Louga ngir nag interview askan wa nga xam ne ñooy dund foofee ndax soxla nañu ko bu baax a baax. jërë ngeen def mbokk yi kon li mu doon xibaar ci bile vidéo yeneen ci yeneen vidéo bu ci alante laata loolu woy leen di like di abonné ci chaîne chaîne ku dee gan ci page bi te abonné ko noo ngi leen su ko defee lu dugal ci bi donc bokk ñu koy njëkk jot cant ak ngërëm ñoo ne leen jërë ngeen jëf vous sur votre chaîne YouTube DKR et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications DKR